dañuy faral di wax naan loo jàng mën ko waaye loo dënnu mu dëgër ki boole jàng ak ndono du kenn ku dul Cheikh Ahmed Tidiane Ba ibnu na Nourou Ba borom kurus gi dajale ay xam-xam yu fasantikoo si wàllu ñaan moo ci gaaw nopp moo ci mën si ñetti fan laa la may nga gis résultat wàllu ngóor du ko xëccoo kenn yow mi bëgg bayre mbala nga bëgg ràññeeku ci li nga yëngatu itam fàtte la yow mi ñu liggéey ba nga naroon xàdd ci sa àdduna ñëwal nga seet si Cheikh Ahmed Ba mu fajal sa soxla ba noppi la kaaraange gu ànd ak ubbeeku xam gi mu xam garab ak reen may ko ku mu ne jàkk sa aju faju yow mi bëgg a jokkoo ak moom wooteel gaaw ci numéro bi 77 400 00 35 77 400 00 35 Cheikh Ahmed Tidiane ba daal ñàkk koo xam wóorul. waaw kooku mooy Thierno Mbengue. kat at bi kat at bi. Thierno Mbengue ngi doon toog waaw. le président national des mareyeurs di xarit di di jaxate di mbokk yi 4appuis ñu leen di leen nuyu di leen jaajëfal ngi suivre direct seen lamb 4appuis 4appuis fas yéene seetaan combat bi nga xam ne mooy grand combat bi diggante Gambien ak euh, Bouba assurance fii ci biir Mbour drapeau Cheikh Issa waaw waaw ñu ci digg géew gi ñoom ñaar ñëpp ngemb yu weex lañ ngemboo waaw combat bi du yomb ma ne ko yomb waaw géwél yi rek ngay dégg instant bi géwél yi rek ngay dégg waaw. Bouba a ngi yëkkati public bi Bouba assurance. waaw. Sénégal yëpp nag damay delloo Cheikh Issa Sane njukkal ndax moo ma jàppale ma gën ay morceau ñu tudde ko drapeau fii ci Mbour ma jóge Dakar ñëw pour présenter leen morceau bi ndax Cheikh Issa Sall na cee jàpp waaye tey jii dañoo ñëw nag pour bégal ko eh. ada ñëpp ko sal sal sal sal loxo ci kaw waay eh wanda ngini wanda ngini wanda ngini wanda ngini wanda ngini ah ñu ngi pré présentation drapeau bi waaw ah, kooku di Cheikh Issa ak ànd ak Youm le ministre Omar sa bu ma yëgalee. bu ma yëgalee. kii laa wax kii nii yéen. bu ma yëgalee ba léegi léegi sax léegi foofu. avancé tuuti avancé tuuti affaire bi. yaa ngi doon tërëpee bi ah yow mii si tërëpee bi. ah ah kii liggéey woo. soo kii liggéey. day liggéey damay liggéey. yow Miss Rogo. eh toogal eh eh toogal eh. waaw toogal. toogal kii kii kii liggéey. kii liggéey. toogal eh. waaw waaw maire bi waay. Thank you.